Pape Djibril Fall. La coalition Pape Djibril Fall, président, a conduit une caravane sur l'axe Pikine, Parcelles et Guédiawaye. ñëw bi ñu ñëw fii tey dañ ci am mbégte bu rëy euh, benn bi mooy sunuy wayjur lañ fi fekk mooy mag yoo xamante ni fii lañ leen fekk ñuy daan seen doole ñu fekk fa tamit ñoo xamante ni mbégte lañ ci am ndax sunuy moroom lañ fi fekk mooy ay ndaw ñoo xamante ni tey ñoom ñoo nekk fii waaye ñun mënoon nañ fi nekk te ñoom ñoom nekk bi ñu nekk fii seen nekkin boobu daf ñu yitteel moo tax tey jii ñu dox ba ñëw pour bokk ak ñoom jotaay bii nga xamante ni jotaay bu am solo lay doon muy jotaay déglu beneen bi it muy gën a xam li nga xamante ni ñoo ngi koy dund teñ xamoon ko ndax suñuy ndaw ñëw nañ fi plusieurs fois ñun tamit ñu xam li nga xamante ni moom moo fi nekk. mu am nag problème yu bari yoo xamante ni benn borom xam-xam day wax ne dëkk boo dem soo bëggee xam nu dëkk ba nekkee nañu yore dëkk ba mu ne njëkkal ca marché ya kon tey jii ku ñëw Seras di nga xam ne Sénégal kenn yoru ko di nga xam ne Sénégal taxaw wuñ ko ci wàllu cet ba ci yi nga xamante ni moom la doomu aadama gën a mën a soxla pour suturlu ñoom ñoo ko defaral seen bopp état defaru ko beneen bi mooy ci wàllu sécurité benn ASP moom moo fa nekk nga xam ne moom dafa waroon ni ñëw en appoint rek ci assister la woon waaye du moom moom lañu waajaloon pour mu ñëw gérer sécurité kon loolu sénégalais yi war na ñoo xam ne fii nga xamante ni barab bu am solo la te ku ñëw Seras dafa mel ni ñëw nga Sénégal yëpp ndax fii ñi fiy xëy si ñoo bàyyeekoo ci kër yëpp te ñooñu comme joxe joxuñu leen cër bi ñu leen waroon a jox dafay wane réew mi taxawuñ ko jàppale ko rawatina ndaw ñi sàggane bu ñu leen sàggane. ñu fekk fi ay entrepreneur yoo xamante ni tey ni ñuy jëlee koppar gi nga xamante ni moom lañ leen war a ñëw fekk fii dimbali leen ko duñ ko def. pour loolu nag dafay wane ñàkk gi ñu ñàkk sàmm alalu réew mi. li fi am as teew caxat-caxatee nañ ko sàggane nañ ko ba nga xamante ni loolu dafa tax tey réew mi gisul boppam ci li nga xamante ni moom mooy ni ñu yore réew mi loolu moo tax nag ci 24 mars réew mi ñu fas yéene koo soppi jëlee ko ci loxo yi ñi nga xamante ni juróom benn fukki at ak ñeent yi ñoom ñoo ko yor te ñii tey bokk ci ñi nga xamante ni ñoom bu ñu waxee da ngay xam ne réew mi taxawuñ ko boo jëlee tey ji ci wàllu élevage maanaam wàllu càmm tey ak yor ay jur fii boo fi ñëwee tey dangay xam ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne niñ leen waroon a taxawoo taxawuñ leen ko ndax kat juróom benn fukki at ak ñeent yi réewum Sénégal lompoñ na ci bu tabaski jotee war a korite jot su réew yi ñu wër bu ñu tijjiwul seen i bunt ñii li ñu soxla dëgg duñu ko am. responsable ko étudiant professeur dégg wuñu fu muy mujjee.